ak yow euh, Babacar par rapport ak situation bi nga xamante ni moom moo am euh, malgré la décision bi nga xamante ni tribunal bu Ziguinchor ak bu Ndakaaru rendre nañ ko mais ba léegi ñu ngi gis ni que Ayib Daffé a du mal à avoir ses fiches de parrainage euh, situation bi ni mel ban lecture ngeen ci am ak ban gis-gis. bon juste que ne di la wax na rek bu ñu gisee Sénégal lu muy doxee actuellement ak situation bi surtout si justice da ngay dañuy tiit en fait on se dit que ci ban dëkk la ñu nekk. parce que bu nekkee ne état bi nga xamante ni moom moo respecté la loi moom moo respecté les décisions de justice ñoom ñoo doon wax y' a même pas un mois y' a même pas deux mois ci gannaaw force restera à la loi bu nekkee loi boobu tey ñoom ñoo koy salfaañi di ko bañ a respecté donc y' a problème parce que au Sénégal je dis problème am na loo concerné yaa doon toog naan du respecter justice mu ne d' accord y' a pas de problème cette fois ci je me damay def sama recours mooy appel bi mu def. nga dem Ziguinchor ñu jox ko dëgg nga ne non non garaaw lu ma plié wu. ngeen ñëwaat ko pour grande instance de Dakar nga dem juge bi joxaat ko dëgg jusqu'à présent des euh, DGE di ñu dawloo dañu bañ a jox suñu ay fiches foofu dama cay wax ak kenn de la quoi je pense que ne état Sénégal bu nekkoon dañoo nekk ci dëkk bu normal état bu normal tey kenn de la warul xëy DGE. ah bon. waaye ouais, tu sais pourquoi. Mhm. parrainage bu mu commencé ba léegi septembre fin septembre octobre novembre yaa ngi fin décembre presque mais chaque jour bu fa ayib dafay demee lu ñu koy wax càndela xëysul wala ñëwagul mais c'est un fonctionnaire tax l'État il est payé par l'argent du contribuable il doit être là ba à l'heure mais bu nekkee ne du xëy si wala retard rek mais lu tax ñu koy fay et bu nekkee na Sénégal moom moo war a garantir suñu justice suñu loi encadrer suñu juge ak suñuy magistrat mais bu nekkee ne magistrat yooyu tey bu ñu àttee yow doo ko respecté est ce que jarati na bun ñuy dem ci yoon est ce que jarati na ñu jàpp ay innocent ak leen tëj ci kaso bi comme que ñu noonu ngay yebal ñu jàpp ay nit ñu bu ñu décidé yow doo ko respecté ban importance la am donc Sénégal instant yi muy doxee kenn xamul. d'accord waaw.